Begin, begin, begin, begin,

lu ma wax na ko léegi nii li gën a yomb pour sénégalais yëpp mooy ñu télécharger application bi c'est-à-dire bu ngeen ko télécharger aussi pratique aussi am njëriñ pour tous les clients mais li ci neex mooy méga terang bi méga teral bi Expresso dafay teral ay clientam ci ay teranga yu extraordinaire ci biir programme bi dinañ leen wax teraanga yi nga xamante ne Expresso daf ko mettre en place pour ay clientam mais dans un premier temps on insiste ce matin ci application bi il faut que sénégalais yëpp télécharger application Expresso bi disponible Play Store App Store c'est-à-dire yéen ñu téléphone xam ngeen ko mais dans un premier temps on vous conseille on vous le demande ndax la mu saf ko ko màcca xam télécharger leen application bi et immédiatement kenn ku ci nekk dina jot ci méga terangam grâce ak méga teral Louga. jërëjëf. acca mbokk internet yi ñoo ngi nuyu baax a baax di leen ziar di am mu toll nii ñoo taxaw ki nga xam ne nii mooy le fer de lance de la musique sénégalaise mu nekk tout à tuddee l'étoile filante même fu mu toll nii gars yi ngi wante est-ce que du nekk artiste de l'année Amadeus li nga bu baax a baax di la ziar salaamaaleykum. yee maa ngi delloo ziar bro maaleykum salaam. maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax. am a Diaz Sénégal yu bari ñoo ngi wax ne fi mu toll nii performance yi def si wàllu musique sénégalaise jéggi na dayoo est que dafa nekk li nga xam ne nii maanaam euh, lu nga liggéey la maanaam travail long terme bi nga xam ne tey jii moom moo day moo moo ñëw tey. yàlla la yàlla moo jiitu lépp yàlla moo jiitu lépp après liggéey après a ñëw ah am na ñoo ma gën a liggéey fuuf peut-être comme ni ma feeñee lépp si yàlla laa yàlla laay delloo lépp. ça vous fait quoi loo génnee mu daal doon it rawatina nga def li nga xam ne moom mooy dio Wally Ballago Seck sekk yaa gisee xiir sa ak bi nga xam ne ni moom moom moo jégéen yow Wally Ballago Seck Sénégal ñu ko adapté woo euh, nekkul lépp lu ma génne dafay nekk it yàgg naa génne son deful it comme nii nii man def naa musique depuis 2013 2023 lañ ma découvrir kon nekkul lu ma génne mu def it te boobu daan naa génne son yu naa peut-être yu daax sax yi gars yi gis nii muy nekk it it moom amul ko am secret bi amul ko am formule bi yàlla mooy def dara génn ñëpp bëgg ko encore une fois yàlla quoi. yàlla voilà man damaa def rek it bi yàlla moo ko def. sa diw ak Wally Ballago Seck nu mu demee. waaw mais comme ni diw yëpp di demee ah collaboration yëpp ni muy demee ay artistes fiilante tase waxtaan dem studio déglu son après def def bi comme ni ko artistes yëpp defee noonu la demee. salange bi nga xam ne Sénégal bi ñëpp ñoo koy krok ki nga xam ne mooy Adja Diallo euh, bokk na si nga xam ne moom def sa bu baax a baax sa promotion alors sa diggante xam ne def na ko Adja ah sama xarit la sama mag la sama lépp la très sérieusement et sama fan la dafa bëgg sama musique et man tam dama koo fanci li muy def voilà Adja ah Sénégal yëpp ko bëgg te man sénégalais la taar la si Sénégal te man sama album taaru Sénégal la tudd déjà donc Adja ah day illustré sax loolu noonu waaw beauté femme sénégalaise ak baax ak yaatu maandu xam loolu moo tax ma bëgg ko ah et moom tamit mu bëgg sama musique loolu la daal feeling bu réciproque la ñu am ñun ñaar sama waay la sama mag la sama xarit la sama lépp la. yaa xam te ne dernière wax nga ko léegi album bi nga xam ne Sénégal yëpp moom la xaar muy taaru Sénégal lan lañ a xaar si taaru Sénégal. waa mën nañ ci xaar euh, son yu rafet yoo xam te ne day refléter son démb yi quoi parce que album la moo xam te ne nii man dama koy def di si rendre hommage gars yi teg musique bi quoi artistes yu yàgg yu njëkk yi quoi ay ñoom Kiné Lam ñoom Youssou ay Ndongolo Kumba ñi nga xamante nii ñoom ñoom laa daan déglu daal ñoom laa si njëkk rendre hommage parce que ñoom ñoo tax man may def li may def donc su ma def dara dama leen si tàmbalee quoi ma leen si rendraale hommage mais sama ci sama biir liggéey quoi dinaa def ay sama son yi may def di ci jël seen ay quelques passages di si jël seen ay air di si jël di leen jël comme référence daal taaru Sénégal ci loolu parce que ñoom ñoo def taaru Sénégal ah. le premier novembre bii ñu jëm incha allah. waaw bu soobee yàlla. incha allah xaar leen ko bu baax. xaar leen ko bu baax merci beaucoup et bonne continuation. jaajëf merci beaucoup jaajëf. Gomes. Thank you. ya badani kenn ci sama waay kon mi maa jëli mi gaa teral yore nga ni waaw di ka war ma saa di way ko ma caale sama